mais bu ñu dellusee maintenant sur euh, son discours devant euh, les journalistes de France Média Monde euh, doon euh, defe naa euh, Boisbouvier la woon ak. waaw c'est ça. donc <clears throat> quatre quatre quatre grandes quatre grands points laa ci jàpp. premier point bi mooy affaire u Niger. deuxième point bi mooy affaire yi choix yi candidat Benno Bokk Yaakaar bi troisième point bi mooy affaire yi Sonko Pastef quatrième point bi mooy affaire yi futur secrétaire général des Nations Unies su ñu jëlee premier point bi euh, fi muy wax affaire u euh, Niger tu sentais un président de la République qui n'était pas en possession de tous ses moyens. Ah parce que à chaque fois de doon hésiter parce que gars yi dañ ko wax ci intervention militaire defoon ngeen ultimatum ultimatum bi passé na mais dara amul mu commencé wax ne waaw xam nga intervention militaire moo war a nekk li mujj mais fi mu nekk nii am na ay ay tractation underground c'est le moo qu'il a utilisé pour mun a xool naka la ñuy régler problème bi moo tax ba léegi affaire yi avancé wu c'est-à-dire le fait que dès le début CEDEAO jóg rek ne dafay def intervention militaire ñoom ñëpp xam nañ ne que problème la problème la au début les acteurs ont demandé mais bu CEDEAO defee une intervention militaire kan lay attaque kan day bombarder le palais de de de de, de Bazoum day bombarder les camps militaires au Niger day bombarder les infrastructures civiles la fan lay jaar pour intervenir ce ce cette activité va-t-en-guerre là bi chef de l'État yi affiché topp euh, le le le nouveau président nigérian qui n'a même pas la maîtrise de la chose c'est étonnant parce que CEDEAO gis nañ ko mu intervenir plusieurs fois de façon diplomatique de façon militaire mais à chaque fois que la CEDEAO est intervenue de façon militaire c'est parce que les coups d'État n'étaient pas n'avaient pas la popularité euh, et le soutien des populations Niger coup d'état bi dafa am soutien une partie d'une grande partie des populations Mali coup d'état bi dafa amoon soutien d'une grande partie des populations donc jéem fa intervenir de façon militaire c'est inutile mm-hmm. en plus il faut que aujourd'hui la CEDEAO nous dise est-ce que ñoom dañuy ñëw pour rétablir euh, une paix ou de l'ordre ou est-ce que war nañu mun a def prévention pour que duñu yegg si foofu Parce que chaque fois qu'il y a un coup d'État dans les pays du Sahel, c'est parce qu'il y a une faiblesse de l'État. Cette faiblesse de l'État est due au fait qu'il y a les forces terroristes et djihadistes qui sont dans le Sahel qui déstabilisent les gouvernements. La force d'attente de la CEDEAO au lieu ñu koy utiliser des militaires qui viennent faire des putsch bu ñu ko utiliser woon contre ces djihadistes là peut-être que putsch du am donc il faut que gars yi di def prévention au lieu que ñu ñëw di fecc gis nga bu affaire bi ñëwee ba ne euh, jodd ne kët ne euh, kët ne jonn euh, réparation rek ngay mun donc doo ko mun a régler mhm. ñu dem ci troisième point bi muy bi muy wax affaire yi Ousmane Sonko ak Pastef Ousmane Sonko au début daf ne moom du discuter du ko commenter parce que mhm. c'est une affaire pendant en justice en tant que chef de l'exécutif mhm. munu ci dugg bi nga ko waxee wax affaire Pastef mu ne Pastef on l'a dissous en respectant la loi parce que c'est une organisation qui appelle à l'insurrection je suis d'accord avec lui su fekkee ne dañ ko jaarale ci loi bi c'est pas la première fois ñuy dissoudre parti politique au Sénégal et il y a des voies de recours la dissolution doit être motivée gars yi dem def seeni voies de recours ñu xool ko le problème bi am Sénégal léegi c'est que nit ñi mu wóolootuñ la bonne marche de la loi waxuma justice de de la loi même parce que dañu am ay njiit yoo xam ñoom ci seen bopp duñ respecte loi donc citoyens yi dootuñ euh, dootu leen wóor ne bu ñu sukkandekoo ci loi li ñuy ut dinañ ko am situation boobu lañ toll boo xoolee même euh, euh, li ngay wax noonu manifestation yeeg yooyu fi mu nekk nii daanaka dafa mel ni interdiction moom mooy moom mooy règle bi Euh, autorisation nekk exception bi alors que c'est le contraire donc dañ nekk vraiment ci dëkk boo xam de plus en plus euh, dañ am ay njiit yoo xam dañuy def lu leen neex au vu et au su de tout le monde te de affaire yu jaay doole lay doon kenn mënu ci dara donc il faut vraiment que ñu xoolaat ko xam ne que njiit du ku moom njiit du ku moom ku ñu dénk la donc globalement daal euh, li may jàpp surtout ci tàggatoo bi ni ñu koy waxee man depuis le début wax naa leen que Macky Sall ne sort pas du jeu politique mm-hmm. il sort pas du jeu politique il se met à côté pour pouvoir continuer à diriger c'est c'est un maître marionnettiste mm-hmm. donc il va être dans l'ombre et il va continuer à diriger absolument absolument man depuis le début je le dis depuis le début dama naan que dafay jéem a teg marionnette am xam nga tey Euh, du maanaam tey plutôt ci interview bi utiliser benn mot bu fort les gens xaw ma ndax dégg nañ ko bi mu naan c'est ma conviction que Amadou Ba va gagner mm-hmm. c'est un mot très fort et Macky il faut pas oublier c'est un champion des élections mm-hmm. c'est un champion des élections ni mu xamee élection ak ni mu xamee le dispositif de la carte électorale du Sénégal mm-hmm. il faut que nit ñi bàyyi ci xel xam ne que bu buggee def ay manipulation à tout moment mun na koo def